artiste mooy que da commencer musique di galérer di galérer di galérer mais à un moment donné da teg sa plan de soo tegee sa plan de carrière ngay def sa euh, single def say clip def say single def say clip bu ñu defee quatre single def quatre clip def ay tournées aussi def nañ ay festival ay tournées internationales. oo xam naa amuñu temps wax ko waa presse mais def nañu ay tournée internationale festival yoo xamante ni def nañu représenté Sénégal euh, bi passé rek le ministre de la culture recevoir ñu euh, ñuy décoré donc loolu presse sax yëguñu ko mais c'est l'occasion de le dire que ñu ngi ci liggéey bi di wax ne man maa njëkk nekk lead vocal orchestre régional de Thiès boobu centre culturel musée la nekkoon donc ça veut dire que mission bi yàgg na ci ñoom kon y' a pas mal d'artistes yoo xamante ni aussi on les a initiés dans la musique donc na ko. Euh, te biñ demee ba nga xamante ni bokk ci ay groupe yu bëri te problème groupe da ngay da ngay du bokk ci groupe groupe bi tas dama bokk ci groupe groupe bi tas ma ne léegi il est temps sama propre muy Ndialabar bu ma ko créer ma ne structure mënul dem te amoo label de production boo fexe dem de formation ñëw nekk ci production bi comme yàlla may na ma xam-xam arrangeur parce que polyvalent laa ci musique damay def pas pour tous les instruments am ko joué donc kon kooku war na mën a nekk un producteur parce que da ngay gis ni producteur boo xam ne mën a joué instrument day war a arrangeur donc si tu as doo demee ñàkk rek da ngay am ñaari yoon bon ma ne boo amee loolu aussi. foog nga produire maanaam foog nga sonorisation boo ko xamante ni booy génn di dem fenn sonorisation boobu moo leen accompagner pour ñuy moo ci sonorisation boobu. bu ma wutee teg ko nag ma nag album bi ba ma ko dalee ñoom ça fait deux mille vingt la ba mu nekk ci biir cuisine ñu koy toog donc ma ne ko jot na ñu génne pour cycle la région de Thiès. parce que Thiès dafa mag la tey si nii def nii Dakar rek moo koy gis conférence de presse album c'est bien beau ñu ci restaurant c'est bien beau ñu ci foire mais c'est bien beau aussi de faire des productions xam gën a yokk sa niveau te fekk ñi nga xamante ne ci kaw mais juste dañ ko pour relever le défi de musique culturelle de Thiès donc moo waral génne album bi 14 titres la. L'album s'appelle Crossover. Crossover, c'est un mot en anglais qui regroupe beaucoup de choses. Bon. Crossover, ça veut dire le mélange. Crossover, ça veut dire croisement. Crossover, dañoo toll ci jamono joo xamante ne il faut que am lu dox at ma du dox il faut ñu mélanger pour que at ma du dox il ñu croiser pour que loolu daw loolu jël album bi tuddee ko first album mais first boobu dafa dafa am beneen partie bu ñu muy parce que kii di mélange kii di croisement kii di métissage yaa ngi wax loolu mooy jaxas mooy jaxas bi ma soog tey te ñun xam ko xam ne ay taal bi marché waaye parle jalabaan ci ñi ko ñi ko jëlee ci Mame Seer moo tax moom lépp lu doon def bant jarabaan bi la doon utiliser te bant jarabaan bi boobu dafa nekk bant bu doy waar boo demee ci français sax ci ab maanaam boo demee la tudd boo demee boo demee ci français dañ la wax garab boobu mystère bu am kon maam si dafa pare c'est un savant lu taxoon muy utiliser jarabaan bi moo xam loolu comme euh, tey ñëwuñu ko pour wax lan mooy njëriñu bant bi mais juste rek pour wax il faut que ñu ko espérer. jaxas gi aussi moom séeréer fa daaw daaw lekk ñam boo xamante ni benn ñam la danaan boole ay ñam yu bëri lekk ko moom danaan jaxasee ñam lekk ko tey jii ko tegal du ko lekk loolu am na ci pàcc bi am na lu dégg ñu lu bëgg mis ñu biir fële ni maam séeréer fa jaxas ko li ko waroon mooy amul temps liggéey la ko bëgg liggéey jaamu yàlla la ko amul temps sa bopp su nekk solo bu yére xotte ko rek day am benn kii ñu wax sa moom xool rek tax ñëw dem loolu mooy ñu ñaas parce que taloon mënul liggéey jaamu yàlla donc loolu maam Seydou Fall ba ko inspiré ci lu tax. te euh, moo ci tracteur yi lu tax lu tax lu tax lu tax ko tax lu tax c'est parce que euh, gars yi am na may nekk ci ñoom xam nga gars yi visibilité ci ñoom wala un lis ñëw dañ ci sawar mais dañ naan kii tawul fenn du sax personne situation bu handicap mais dañ loolu wala ci dañ naan sax si ko am si ko handicap alors que kooku lu nekk ci kaw ak fu mu dem ak ñu muy taw wala taw ak nekk pour montrer aussi que ni ñu ngi wax sànq rek nit yow yaa ngi njëkk naa fekk ci say weeru daal man taw a commencé maanaam nit yow yaa ngi njëkk ci sa bopp nit ñi fekk la ci nii nag ku ma ci fekk si alhamdulilah la mais ku ma ci si je continue ce que je fais parce que soo yaakaar ci doole nit yàlla rek boo yaakaar ci doole da lay tàggat parce que da naan maa koy maa koy dimbale maa koy maa koy def da lay tàggat mais danga ciy nekk ba nit ñi fekk la si ku la si fekk ci avance ku la ci fekk wul di avance parce que yàlla kese kese kese moo fi parce que am na benn morceau boo mën a am jamono defal sa jamono xam naa max ma ko teg après defal sa jamono morceau boobu dafa am solo nit ki bari man dama jàppee njëlaat bari ko ci bàttal. puus mu dem puusul mu dem ñun bariwul ci pàttal mu dem puusul mu bu fekkee ak quatre-vingts ans la ñu réussir on on ira jusqu'au bout parce que loolu rek moo ci solo te teewul ku ñu bëgg jàppale dañuy jàppale mais fii pour dire que ni euh, avant ak sorti album bi ministère de la culture on l'a adressé mais peut-être ak transition bi am ni xëy na peut-être euh, euh, loolu moom mais ñun si bu ñu jógee ay jóg on avait des accords maanaam sama festival bu ñu jógee ñoo ko financé def tout mais comme Macky Sall da ko changé bon jotoon maa dugal lettre bi dem na mais ak ministre ministre bu bees bi mais ki laay demee nii institution les institutions c'est pas les hommes qui partent les institutions restent parce que man je me rappelle su fekkee dama bind te ñoom ñu defoon benn accord de partenariat avec man même ku Ablaye Diop bu demee ki fi nekk pour continuer loolu mais sans bu joxoon na ma beneen leçon ne les institutions nit ñi seen doom-doom la ñuy doxee mais ñëw ñu xool bureau yi bureau bi lan moo nekk fii d'abord lan moo nekk lan la fi waay bàyyi parce que Sénégal ñun loolu lañ tànn na ah, tey su ma falee dafa folli ko folli fal la da ngay ñëw pousse ci dafa rek alors que dafa am na projet yu bëri yu fa nekkoon mais ñëwal vérifier d'abord xool dafa projet bi bàyyi am na njëriñ wala amul njëriñ am njëriñ li ci am njëriñ nga sànq dañoo dañoo buus loolu mooy sunu Sénégal tey donc ñaar ñaata yoon ñu di ma bàyyi loo xam ne ñaata yoon laa fi organisé sama anniversaire sama xaalisu bopp laa di defee damay nuyu bois yi je di fay sama lycée def publicité def lépp sama bopp laa koy defee yàgg naa ko def des années sa xaw ma sama sept ans huit ans ou dix ans kon tey su ma demee ba teg lii ba def sama studio boobu. parce que aussi décision bi fii soo demee Dakar di pay beaucoup d'argent ça te coûte beaucoup d'argent li ma def nii du lu ndaw da ngay dem Dakar te fay lycée fay service d'inspection fay studio fay fay fay parce que musique c'est la production après la production il y a la promotion après promotion il y a le marketing après il y a la distribution après nag nga soog a acquérir say droits yooyu la production la euh, marketing euh, après nga def ci distribution bi nga doog a nag say say say say droit say droit yi nga xamante ne moom la loolu mooy musique ñett te loolu sax ba gàncax gu mandat tey jii ñu ne woon maison disque yi tamit dañuy choisir ñu ñu jël pour produire leen te maison disque yi aussi da fay dugg mais day mel ni si taw tànk da la parti la. waaw léegi nag loolu soo ko mënee defal sa bopp aywa man loolu laa gëm de dama ne na ma xam-xam ñi koy def xam-xam la ñu am ay nit la suñ ko mënee am nañ du ñëpp ko mën mais suñ ko mënee ñu def ko moo tax ñu produit sama bopp defal suñu suñu studio rek produit sama bopp créé sama label bopp ma musicien de polyvalence la xam naa solo tees du may damay jouer instrument yo ci vente di ne musique Sénégal dafay yàqu parce que pit nekk yi da ngay benn kaan boo xam ne ne ay musicien la yor dafa ay son muy mbax muy lu mën doon pit nekk yi ñoo commencé yàq musique bi mais ñun dañoo jàng musique si jàng solfège dañ koy def bon dans un premier temps su dee artiste yooyu mu am moom ça dépend ci moom lu muy am su fekkee moom doole bëriwul dama naan ko nekk ko def nii ma def sama doole mais su fekkee doole bëri na j'ai j'ai des artistes yoo xamante ni sont artistes à Thiès et ñu seen temps boobaa dañ ñëw ñëw ay diw jël ni diw dugalal ma ni diw day a facile problème bi mooy su fekkee ne kooku amul financement ñooñu da ngay di fay parce que fii Thiès réew gratuit man nag naa man man maay bàyyi man naa may mais xaw ma kenn moo tax loolu laa lay wax dañu def contrat man la ah soo amee financement mën naa invité gars ñu apporter cette touche ñu corriger ko après ça passe parce que day gën a yokk affaire yi mais ni yàlla amul moyen boobu je suis obligé de le faire tout solo la 14 titres bëri na dina ndaw mais ku xool ñun fa ñu tàmbalee Ibrahima Ndiaye am na seen moment ñu génne te ku génne 14 xamal ne donc yaa meilleur teg yi nelaw parce que ñun bu ñu tàmbalee musique ça fait de du tey nee naa la man maay lead vocal orchestre régional bu Thiès daaw ak yu ma directeur centre bi rek kon sax kooku loolu yàq na kon kooku denc na lu bari kon boobu ba tey. su ma génnoon trente sax léegi-léegi nii du dara parce que non moom parce que ñoom nit ñi askan bi dañoo toog lu yàgg naan yow àll bi kañ kañ kañ kañ kañ ma leen xaaral ma kañ kañ la kañ ma leen xaaral ma léegi ñëw moo tax bi bi ma ma ne toog l'attente de la production a été demandée fortement mu ne xaaral ma jox leen lu rek moo tax koy di quatorze titres dafa nekk di déglu rek déglu rek ba nelaw bon crossover bi c'est un mot islam anglais moom laa la wax sànq crossover moom choisir ma ko par hasard parce que dama toog di xool di xool di xool crossover ça veut dire le métissage ça veut dire le mélange ça veut dire le croisement il reste les lettres pour ñetti mots yooyu métissage mélange croisement ba muy européen américain bi africain bi ñëpp xamul ñu jaxasoo pour mu dem donc la musique la culture il faut que mu mélangé wu ñu jël fii parce que gis nga léegi sénégalais ñu adapté nigérien ñu jël fii jël fay jël fay jël dugal ça passe foofu la jamono ñu toll la encore maintenant ñëpp il faut ñu daje c'est un point c'est le point cher bu nga wax la daje waaw donc ci biir moom nag comme ñun ay disciple moom Cheikh Ibra Fall lañu ñu gis ci loolu jax da nga doon solo ñu teg donc tout ça c'est mélangé parce que moom Cheikh Ibra Fall je le disais ni daaw nekk benn lekk loolu am lu ngeen li muy teg taw woon lu liggéey jaamu yàlla moom la mu mos a yére benn yére mën na ko sol yàgg. bu xotee ko jël puus ko jël benn morceau taf